yor oto bi wala yor oto bi. ban oto ngay xool. yaa yaa yor oto bi. loo ci am. doora damaa xool gis ñëpp yéeg ak deer ma doon xool ba xam quoi te xam oto bi dama ko doo yolomal fii pour ma mën a. lu tax ma koy yolomal. pour ma mën a expliquer kaa bi kaa bi. xam nga danga ma romb quoi ci premier virage bi léegi nga demee deuxième virage ba bëgg a laqati ko troisième. léegi nga romb quoi ma seen ñu blindé pour man ministre wala député ko yor quoi léegi après ma seen benn taxi taxi bi topp la quoi léegi bu la taxi bi toppee après mbari dalay topp progressé la quoi léegi moo tax. mais oto bi beneen la mënoo ñëw rek te da ngay gaañ sa bopp. dama ko tegoon oto ministre wala député ak yooyu tax ba yooyu gars yi dañ leen di topp ba ci plage yi. dina topp ba ci ruq-ruqaat yi xam nga di leen agressé quoi. dina ko jël la. sama oto Balla waay allez. tranquille de. nga taayoo de dara de allez Balla. te taayoo taay séeréer. gars yi yow la ñuy wax de. gars Balla Balla allez Balla jaajëfatee. boo gaañee sa bopp la yor. de sa loxo yi ba yaakaar na loxo yi kii ak juttu. da ngay da sa ba dee ko pour Sénégal bañ ko dégg sa combat sa gaañ. waaw jël bi sa copain. jëloo bu dara war de. noo ko gisee. jël bu technique la jël bu tegu ci taayoo. ale bala ale yow la gars yi wax de. am na ñu des ale mbër am na ñu des man xam naa loolu. yow xam naa la am na ñu des te jël boobu xolam yor nga ci diis yoo ci war a daan te kenn rek nga ci daanagum. mais oui ma taay damay bëgg a dem Casamance. dañ ma war a yóbbu fa benn mission te dama war a monter quoi te xam nga bu ma monter foofu. guddi gi damay taxaw 24 heures sur 24 dama koy taxaw quoi te léegi xam nga 34 dimanche 32 lundi 18 mardi 27 mercredi 49 jeudi 62 vendredi xoolal yoo xam ne bii nag man damay war di taxaw di garder affaire yi quoi dama am droit xool droite dama am droit xool war faa xool te loolu foog nga laaj condition bu doy quoi soxla naa ay flexion yu baax ak ay pause yu baax quoi. waaw la téye amul leg man man di def ba tànk ba am dara quoi ba mo mën di taxaw bu ba pression di yëg gin tax ma bëggoon quoi don la wër pour dag gis na wër bi ngay wër mooy sa roulé bi sa wëndeelu bobu wëndeelu bobu du de wër bobu ko sa tànk baaxul doo ko def de ah, père lolu du caaxaan da nga yaaka dafa yom mais bobu nu may def baka jangal bako est-ce que mën nga mais bien sûr man kay mom la bëgg man quoi ma may la may mako may mako may ma may ma wër bi père est-ce lolu wër na ci ah mais grawul ok vas-y amul problème paré nga wa paré da dagg te dagg gin gin ki deg gin gin ki deg gin deg gin gin ki deg gin deg tere te te gin gin deg gin deg gin gin gin ki de de de de de de de de de gin cha gin cha cha cha gin gin cha gin cha gin te te te te te te te te per per rabal nan ko yo per lu ngi ni damay damay miir baal la damay miir. waaw la damay miir jàpp ci damay miir de. jàpp naa ci taxawal. xoolal ma nopp mi ci bat. sa nopp bi ngi ci yow. Ah, lan lan mooy sa problème léegi. ah lan mooy sa problème léegi. damaa gisatul dara. gisatoo. dara dara gisatu ba dara kay. non mais taxawal yi père lan la. damay damay damay yor gi mooy tàng. waaw ma xool xaaral ma xool. le monsieur de. mais lan moo la waral ni miir bi ni. ni ma roulé est-ce que noonu la est-ce que du doon beneen sens bi laa waroon a roulé. mais noonu la noonu la sax. mais lu tax mu yow da nga miir booy roulé. non non taxawal taxawal. waaw. Ah. sifflé léegi. ah cu cu diwtiir wala. cu bu kii bu am diwtiir bu tuut. mais nañ ci def diwtiir bu bëri nag moo tax moo ci génne. ah yow soo saga rek nga bëgg. cu diwtiir cu. cu cu cu. cu ba jëg. cu ba cu ba gëj ak cu bëgg lekk nga yow Balla. aywa dañ la dañ la waaw. jaajëf waay Balla jaajëf waay jaa kontaan naa mais attention gars yi la wax de rek rek sax du ko tee du ko tee du ko ŋëpp tee ko foofu dee yaa ngi ci taa dee leewoon la yaa ngi ci taa te xoolal attention de tu vas voir yaa ngi ci taa da nga dem mën a brigadier permo la bee di yaa ngi ci taa allez voilà allez Jajibhai. Okay. Okay, Jajibatte. Okay. Jajibatte. Okay. Are bala, bon kot ne asya. Okay, Mansur. Bon kot ne asya. Circle amber, circle, circle. Tipurule, are. Purule. Are. Huh? Oh,